wala nga boole sem sem sem de euh, wala bok sax maître luñ doy yeb da fay am donc euh, dañ leen di former légui ci serif pays ba ñom situation yo xamne buñ ci tollé dañu mëna dañu mëna taxaw pour jangal xalé yi euh bi ci tegg aussi amna li wax les les les ressources manam naka li ñu jangalé ci classe multigrade lolu ressources yoyu euh donc euh, Euh, defar nañ ko biñ ko defaree yóbbu ko ci ay bassin def ñeenti bassin formateur yépp ñu former leen ci ba téye seen ressource ba léegi ku dem ci CRFP yi di fa formé wu daañu formé wala la naka la ñuy jàngalee classe euh, multigrade ba daal vraiment loolu moom daanaka lu ñu bon processus bi mi ngi continuer mais di ci ëppoon euh, def nañ ko ci accompagnement wu UNICEF. am na solo trop parce que UNICEF dafay jàppale système bi té mom day fekk euh, fi fi fi fi fii metti mu mu mu mu mu ko euh jàppale nañu ñu def éducation inclusive liggéey nañ ci ak UNICEF liggéey nañ ci ñom ak ñom aussi ci li wax CVC classe euh, compétence de vie euh, courante mais bi dafa déterminant won parce que il fallait face rapidement faire face ci ben situation bo xam ne ñoo bét ñun ñëpp donc ñu ñëw jàppale ñu dëgg-dëgg daal ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax parce que aussi partenaires financier financiers yi dañoo baax ci système bi ndax financement système bi ñett la état bi la de d'élèves yi ak euh, partenaires et financiers yi te li am solo mooy ñu cibler xool fan la jàngoro yi nekk ñu def foofu ressources yi loolu mooy tax système bi dem vers la qualité. yàlla euh, dimbali nañu ren moom am na performance boobu def nañ ko ndax euh, seen formation teel na jeex def nañ seen examen. ba léegi ñi ngi ñi ngi ñi ngi liste bi mi ngi dérache euh, daanaka mën nañu wax ne bu fekkante ni bi sax affectation yi jeexul ci 48 heures yi moom daañu leen ventiler daañu leen affecté kooku moom euh, pour que vraiment classe yi bañ a tëju loolu moom ñu ngi ci dalal xel xelu ñëpp ñu euh, parents d'élèves yi ak élèves yi.